di seede ne amul kenn wala lenn lu ñu war a jaamu ci dëgg ku yàlla di seede it ni muhammad sallallahu alayhi wa jaamu yàlla la kenn waru koo jaamu waaye yenente yàlla la kenn waru koo weddi ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi fas yéene tàmbalee ak yéen benn téere bu yàlla def barke incha allah muy kitaabu tawxid ki ko taalif mooy al cheikh al imam mujaddidul qarn athani achar muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu taala dars bu njëkk bi nag incha allahu taala dañ koy jagleel waxtaan ci dundu muallif bi كان موي الإمام محمد ابن عبد الوهاب أكتر بي متالف بكتاب التوحيد بان دايال أم تجانغالي توحيد الله عز وجل موم محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان التي برم خم خمو أهل السنة والجماعة بل ci borom xam-xam ahlu sunna yi mag yi la bok ñi nga xamantene yalla suñu borom subhanahu wa taala def na ci ñom xam-xam bu barkel julli ñi jëriñ ci ñom bu baax baax ñi jëriñ l'islam jëriñ julli ñi yalla suñu borom subhanahu wa taala sotil ci ay loxom lo xamni neewna mu na sotti ci loxo keneen moom Muhammad ibn Abdul Wahab niñ ko waxee mu ngi dund ci douzième siècle ci gàddaay gi suñu digganteeg moom daanaka ay ñaar téeméeri at ak lu teg tuuti moo ciy dox kon yàggul yàggu yooyu mu nekk koo xam ne dafa juddu ci kërub xam-xam baayam nekkoon imaam ca dëkk ba mu jàng ci fa mu dëkkoon mu najd nekkoon ku neex xel nekkoon ku ñaw ba sax mënoon naa wuutu baayam wala wuutu na baayam ci imaamatul masjid ca dëkk ba bu mu demee ba jàngam bënn mu remplacer baayam ca masjid ba mu doon jiitee mu gendeeku gis ne kat wax dëgg yàlla jamono ji léegi bokkaale niñ fi tasaaroowee ëpp na mu seetlu façon bokkaale yoo xamante ne nitu jamono ñu ngi koy def ci xeetu jaamu ay bàmmeel ci xeetu bokkaale yàlla ci xeetu tawaaf ay bàmmeel ak tawassul ci ay Euh, nit yeneen xeetu bokkaale ko ni ngeen ko xamee rek ni mu tasaaroo suñ jamono jii noonu la tasaaroo woon moom tam ci jamonoom mu xam ne li yonent bi sallallahu alayhi wa doon xeex ca màkka moom moo feeñaat tey fii ci biir jullit ñi te gis na ne boroom xam-xam yi mu jamonoon teel ci jamono te gis bokkaale yooyu ñu ëpp ci ñoom dañ cee ànd di ko dooleel ñeneen ña daat ciy noppi màndu ci néewoon na ku taxaw di woo nit ci wéetal yàlla subhaanahu wa taala ak bañ koo bokkale kenn ak ci di leen woo ci tawxiid te sori bokkaale mu laxasaayu nag takk ndigam fas yéene jàmmaarloog bokkaale yooyu ak bidaa yooyu ngir def devoir bi nga xamante ne yàlla suñu borom da koo gàll ci loosu bépp boroom xam-xam mooy addaawatu ila tawxid ñu gis ne naam jàng na am na xam-xam waaye muhimma ah, bi ku ci nar a sóobu mooy woo nit ñi jële leen ci bokkaale yóbbu leen ci tawxid jële leen ci bidaa yóbbu leen ci sunna jële leen ci maasiya yóbbu leen ci taatullah ku ci nar a taxaw war ngaa yore ngànnaay bu dëgër te ngànnaay loolu bu ci jiitu moom mooy xam-xam xam-xamu alquran ak sunna bu set wecc ndax yàlla suñu borom nee na wa jaahiduhum bihi jihaadan kabira jihaatal ak noon yi jihaatal ak bokkaalekat yi ak bidaakat yi jihaat bu màgg luy doon sa moyen bi ngay utiliser pour jihaat ak ñoom nee na na doon xam-xam xam-xamu alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa jaahidhum bihi jihaatal ak ñoom ci alquran bii ci xam-xam bi yàlla wàccee jihaadan kabira jihaad bu màgg a màgg a màgg màgg kon ngànnaay li gën a mag lu nit di jihaatee fi sabilillah di woote ci diina yàlla gu set ngànnaay li gën a mag li ngay ngànnaayoo moy alquranul karim mu daan ni kon faw ma demat yokkat sama xam-xam ci la laxasaayoo daa di commencé di wër dem màkka dem medina iraq dëkk hijaz yoyu di dajje borom xam-xam yi di tatan ci sen xam-xam ba geejju ci fan yu bare bare bare ci tafsir ci hadith ci ulumul arabiyya ulumul ala ak ci siira ak ci yeneen fànn yu baree baree bari ci la daal di del siwee nag te dëkkam commencé di woote ci tawxiid comme ngeen ko xamee képp ku woote ci diine yàlla bu set ci tawxiid ak ci sunna faw da am ay noon yoo xam ne ñooy taxaw sa kanam gàllankoor la wa kadalika jaalna li kulli nabiyin aduwan min al mujrimin yeneen ti bu jub di woote ci yoon yàlla rek dana am noon yoo xamante ne dañuy taxaw sa kanam noonee moom tamit la noon yi taxawee ci kanam ci waa ahlu bidaa ak waa ahlu shirk di seeni boroom xam-xam jàmmarloog moom di ko xeex waaye ci pas-pasam bu dëgër ak farloom ak xam-xamam ak yàqi bi am ci yàlla nekk kenn koo xam ne ci seen biir continuer daawam boobu dëkk bu mu dem di fa jàngale tawxid di fa woote ci sunna am ay nopp yu ko jox nopp di ko déglu muy am ay benn benn taalibe waaye bu yàggee tuuti rek boroom xam-xam yooyu taxaw di xeex ak moom seen lay day daa jeex duñ am ci moom pexe ndax xam-xam bu bari bi ko yàlla joxoon ak ngëm yàlla bu dëgër ndax yàlla bu boole jox la xam-xam ak ngëm yow dajale na la xéewal yépp te sab lay day dëgër wa qaala alladina utul ilma wal ñu noonu xam-xam ak ngëm bu ko defee boroom xam-xamu bidaa yooyu nga xam ne ñoo doon jàmmaarloog moom dem ba xam ni kii mënuñ ci moom dara fi ñuy mujjee moom mooy boole ko buuru dëkk ba donc kii dafa indi diine ju bees dafay yàq pas-pasu nit ñi kii kenn xamul lu mu indi dafa yéeféerloo nit ñi dafa saaga suñu maam yi jaxase ko buuru jamono jooju buur ba tam daan ne ko génnal sama dëkk yow mënumaa xajoog yow ndax buur mbooloo lay wut su jógee foofu dem beneen dëkk nekkati ci daawa yàlla dogal mu am ay tuuti tuut taal bi koy wuyu am ñu taxawaat di ko xeexaat su leen yeyee ci xam-xam ñu jaxase ko buur dàqati ko noonu lay def di jóge ci dëkk dal ci dëkk du tàyyi jóge ci dëkk dal ci dëkk ba yàlla suñu boroom dogal mu dem fii nga xam ne tey buuru Arabie Saoudite yi seen maam bi ko sanc foofu la dëkkoon koy wax Malik Saoud bi mu ñëwee ci dëkk boobu buur ba nekk nit ku bëgg yiw di Malik Saoud daa yëg ne am na boroom xam-xam bu màgg bu gane si dëkk bi def ay pexem ba dajeek Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab moom buur mom cheikh bi dafa nekkon nit ko xamni dafa beggon daawa ku mu togal bala jotaay ba tas dina la yalla neena bi dina la leral diine yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam ñu toogee buur bi mu war ci profito war buur bi ci yalla leralal ko tawhid bi nga xamni ne bi alayhi salatu wa ci la nekkon ak ay saxaabaam lolou daal di marqué bi mu gis deug ak leer ak ngëm ak xam-xam ci waxu boroom xam-xam bii di Muhammad ibn Abdul Wahab ci leen na ko nag ah yow de wax dëgg yàlla li ngay wax nii mooy dëgg waaye nag xam nga ne yow ku ànd ak yow ci jamono ji day bari noonu man buur laa waaye sama dëkk bii rek laa yilif am na yeneeni dëkk yoo xam ne ñeneen a ko yilif te bu ma ànd ak yow dinaa bëri noonu cheikh bi ne ko nag dama lay woo ñu jaayante ci kàddu laa ilaha illa man yàlla dénk na ma xam-xam sama wareef mooy ma leeralal nit ñi li ma xam te mu nekk lu wér yow yàlla dénk na la nguur ak doole am na lu la war mooy sa doole jooju ak sa nguur googu nga def ko ci jàppale diine yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tasaaroo comme yonent yalla Sulaiman nguur gi ko yalla joxoon ni ko utiliser ci tas tawxid wesaare tawhid comme Dul Qarnayni nguur gi ko yalla joxoon mu wër penkook so ngir tasare diine yalla subhanahu wa taala yow sa gi lolou mo la ci war bu waxe loolu bur bi bur bi ne ko nak man suma la topé ci li ñu jappalante ci yow nga indi xam-xam man ma indi sama katan bi ma yalla may ak sama lan la ci am cheikh bi nekk koo xam ne ku am yaqin ne ko nag képp kuy woote ci tawxid yaay mujj am ndam commencement yi mën na metti waaye ndam li moom sa loxo lay mujj wal aqibatu lil muttaqin wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al arda yarisuha ibadiya salihun ñu ne ko boo àndeeg man ñu woot ci tawxid insha allahu taala nguur gi nga yor muy nguur gu tuuti yem ci village yàlla dana ko yaatal ba yeneen dëkk yépp buur ya fa nekk nekk ci shirk ak di dolli shirk yàlla dana leen folli dajale seen province yeeg seen dëkk yooyu yépp teg ko ci sa loxo sa nguur gën a yaatu yàlla suñu boroom dana defal tamkiin bi mu ko waxee loolu buur bi yàlla ubbi dënnam mu jàppalanteeg moom te xam ngeen ne ñaar yi fu ñu àndee rek day tax lislaam dëgër mooy xam-xam ak buur fu ñu àndee jàppalante ci dëgg taxawal maandutu taxawal tawxiid ak sunna loolu day daal di dëgër ndax yàlla suñu borom nee na wa kafa bi rabbika haadiyan wa nasira ibnu taymiya nee na aaya boobu li ñu mooy haadiyan bil kitaab wa nasiran bi sayf yàlla dey suñu borom subhaanahu wa taala mooy kiy gindi jaam ci téere bi di alquraanul karim waaye mooy kiy dimbali tamit ahlu tawxid ahlu sunna ci jox leen doole ak nguur jàppandal leen dëgëral leen ci suuf si waaye lool tam mu ko defee bil quwwa ci kàttan kon boroom xam-xam bu xam alquran ak sunna bu nguur gu maandu ànd ak moom dooleel ko loolu day gën a yombal daawaam ñaar ñooñ la yàlla boole muy Malik Saoud ak Muhammad ibnu Abdul Wahab ñu fas yéene jàppante kóllërante ci diine yàlla subhaanahu wa taala bi di xutba di jàngale di waaraate di tasaare daawam buur bi di ko jàppale ci lu mën lu mu taalif ci téere ñu mool mu financé ko mu tasaaroo jàppale ko ci ay ndongam jàppale ko ci tasaare daawam noonu noonu noonu noonu noon yi commencé jóg pour dox digganteem ak daawam boobu mu nekkee buur yi commencé di menacer taxaw ne daawa bii moom du fi jàllee du dugg suñu dëkk te xam ngeen ne lislaam diine la boo xamante ne day xàll yoonam di woo ji tawxid ak ci sunna jotewut ak kenn dara ku taxaw ci kanamam nag ni lii du fi jàllee waa bu boobaa nag ci la jàmmarloo di am bu ñenn ci buur yi taxawee ne lii du fi jàlle ci la buur bi ak cheikh bi commencé jihaad ah, kon ngeen xam ne cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab jihaad na daawa na ci xam-xamam ci pind waaye tam jihaad na ba jihaad jotee ñu ànd di jihaad dëkk par waaye fu ñu dem jihaad yàlla suñu borom may leen ndam noonu ba ni mu ko diggee woon buur bi ne ko buur yi yépp di daawa ci shirk ak ci bidaa yàlla dana folli seen nguur dénk la ko yow noonu mu ko diggee woon noonu la ko yàlla defee subhaanahu wa taala nguuru shirk daanu drapeau bidaa daanu yàlla samp drapeau tawxid ci barke daawa cheikh bi ak buur bi nga xam ne moo taxaw ci wetam dem ba mu gi tawxid dëgër ba moom cheikh bi ak ay ndongam ñu damm xërëm yi bàmme leen doon jaamu it ñu dindi ko dàq ñu ko doon jaamu tuubloo ñu baree bari ci mbindeefu yàlla subhaanahu wa taala bu jóge mu commencé taalif nag parce que fépp foo xam ne làmmiñam yeggu fa tànkam yeggu fa bëgg naa taalif pour téeréem yegg fa xam-xamam yegg ci la taalifee kitaabu tawxid bi ndax koy yónnee ci dëkk yépp ngir jàngal nit ñi tawxidullahi subhaanahu wa ak ñi nga xam ne ñoo doon indi subha ci daawam mu tontu leen ci xam-xam taalif kashfu subuhaat bi mu taalifi kitaabu tawxid ñenn ñi commencé na dañ koy tontu di indi ay subha ak ay lënt mu taalifa leen kashfu subuhaat ñu noonu bind ci xam-xam loo xamante ne benn boroom xam-xam mënu ko teggi ci wàllu tawxid damm nañ xërëm yépp ci loxoom ak ci loxoy taalibeem nettali nañ sax nee nañ am na ci xërëm yoo xamante ne ñenn ci taalibe yi ñemewuñu ko woon laal ndax ay yàlla yuñ doon jaamu yoo xam ne seytaan day mujj làqatu ci di ci feeñal ay mbir yenn mbir yoo xam ne ñi oyof bopp dañuy jàpp ni li karaama la fekk na seytaane moo koy def ngir jay ay nitam bi ñu ragalee pour màbb ko moom boobu daanaka màgget na jege na quatre-vingt-dix ans presque biñ ko ko waxee moo sol dàllam nekk mag dem jël sémmiñam fekk fa yàlla bu gën a ponkal ci yàllay bokkaalekat yooyu ci la delloo moom ci daaram ak ci néegam nee na yokk ay jaamu yàllam ndax mage na te yàlla suñu borom sottil na ci loxoom tawxid tasaaroo na ci jazira ba mu sëgg ci jaamu yàlla subhaanahu wa taala ak ci taalif loolu moo tax tawxid boobu moom cheikh bi doon woote barke boobu moo des ba léegi yi nga xamante ne moom mooy al arabiyatu saudiya nga xamne tay bo boo doon wax baladu tawhid ci senegal ci aduna bi ba mu daj fan moy dëkk tawhid ben dëkk nga meuna joxogn ni fi kat mom, desu fi jaamu mel desu fi jaamu ay awliya desu fi samp xërëm desu fi fat njaberkat lenn ni bokale mom kenn du ko fa def xanaa nga dugg sa duus wala sa bir sal teju kenn du la gis bu no ko def ci bedd bi benn dëkk la ci aduna bi arabia saoudia loolooy nag boo gisee mu am foofu ginnaaw yàlla barkeb daawa ak cheikh Mouhamad Ibn Abdul Wahab ndax moom cheikh bi balaa muy fenk ci jamono doo fekkoon gox yooyu di jaziratul arabia mel ni suñu dëkk yi Sénégal ci bokkali bu tasaaroo jaamu xërëm jaamu ay bàmmeel jaamu ay awliya waaye moom mu nekk boroom xam-xam boo xamante ne bu gëm yàlla laxasaayu di daawa yàlla barkeel daawam nettuwaay waat foofu ba mu set wecc ba mu delluwaat ca jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam na meloon wala mu jege ko kon kooku ci gàttal mooy Muhammad ibn Abdul Wahab boobu ba léegi nag moo tax ngeen dégg arabi arabi saudi boo demee ngay dégg ñu naan Ali Cheikh ak Ali Saoud Ali Cheikh mooy ñi nga xamante ne ci askanu Muhammad ibn Abdul Wahab lañ bawoo bokk ci njabootam ñooñu la plupart lu jëm ci wàll ifta mufti ci moom la génn léeg nag ñu tànn ci boroom xam-xam nga xam ne bokkuñ sax ci àllu cheikh waaye seen xam-xam moo leen may ñu mën fa nekk mufti comme Bun Baaz waaye ñu ci ëpp ci ñi fa jaar nekk mufti ci njabootu Muhammad ibn Abdul Wahab lañ bokk àllu Saoud mooy ñu yore nguur gi hmm? ñu gi ci njabootu al Malik lañu lañu bokk ñii ñooy àllu cheikh ñoo yore xam-xam bi yore ifta bi yore yore yore ñii ñooy àllu Saoud ñoo yore nguur gi ba léegi nii loolu moo fa loolu moo fa am mu ngi noonu loolu mooy ci gàttal li ñu mën a wax ci dundu ak cheikh Mouhamad Ibn Abdul Wahab waaye boo ko doon yaatal moom cheikh boobu bind nañ ci moom ay téere yu bare bare ci dundam ak jaar-jaaram ak daawam ak meññet yu mu def waxuma rek ci jaziratul arabia waaye ci wër àdduna bi yépp foo dem ci àdduna bi di fa fekk ay téereem di nga fekk ñoo xamante ne boroom xam yoo xam ne ci téereem lañu lañu lañu nàndee noonu bu dee ci téere bii mu taalif muy kitaabu tawxid téere bu màgg la téere la boo xamante ne boroom xam-xam yi tagg nañ ko wax ci ay ngëneel yu baree baree bari mu nekk téere boo xamante ne néew na kuy jàng tawxid rawatina tawxidul ibaada te jàngoo ko ndax boroom da ci dëxëñ xam-xam bu bari te set wecc ñenn ci boroom xam sax dañuy wax ne benn daggit la ci saxiixul buxaari ndax dafa bari ay ahadith yo xamantene ci sahih al-bukhari lako tibbee bari waa na booy topp téere bi lay wax ne loy gis ñuy wax ne wa fi sahih wa fi sahih wa fi sahih lim ci jublu al-bukhari wala muslim téere bi bokku na ci ay ngëneelam moy lépp dalil la qaala allah qaala rasulullah qaala saxaaba te loolu mooy xam-xam woykat def ne al ilmu qaala allahu qaala rasuluhu qaala saxaaba sa laysa tam tamwiih moom kitaabu tawxiid day tàggat ndongo li ci dellu ci ay dalil masala boo yëkkati yàlla nee na yonent bi nee na saxaaba yi nee nañ boroom xam-xam yi nee nañu naka noonu moom téere boo ko jàngee li jëm ci tawxiidul ibaada muy tawxiidul uluhiya kan lañ war a jaamu naka lañ ko war a jaamu dana leer ci sa bopp ndax indil na la mufradaatu tawxiid benn benn tawxid lii ci tawxid la bokk lii ci tawxid la bokk lii ci tawxid la bokk indi na ci yu baree bare bare ba nga xam ne tawxid dafay leer ci sa bopp dangay jaamu yàlla ala basira na ko noonu indi na ashirk bokkaale bu mag bi indi bu ndaw bi indi bu làqatu ba pare it indi mufradaatu shirk benn benn bokkaale yi ndax nit mën naa xam bokkaale ne dafa baaxut day saxal nit ci safara te day tax yàlla suñu borom du la jéggal boo ko indaale yowmal xiyaam waaye ànd ak loolu yëpp mu ngi ci bokkaale xamul na li mu def bokkaale te boo ko bokkaalee ka bon mu ne ëskay bokkaale kay dara gënu koo bon te pourtant mu ngi ci bokkaale boo ko li nga def de pourtant ci bokkaale mu ne mukk lii du bokkaale suñu maam yi fii lañ ko bàyyi loolu ñàkk jàng mufradaatu sëriñ bi la jàngal mufradaatu shirk ba nga xam ne benn benn shirk yi da koy xàmme yow daan la lii ci shirk la bokk bu mag la lii ci shirk bu mag la bokk lii ci shirk bu mag la bokk lii ci sirk bu mag la ba daanaka nga xam ne bokkaale bu mag mu pare si ne la lii ci bokkaale bu ndaw la bokk lii ci bokkaale bu ndaw la bokk lii ci bokkaale bu ndaw la ba nga xam ne bokkaale bu ndaw lii ci bokkaale bu nëbbu la bokk noonu it dana la wax ba wax la sax ñi nga xamante wasaa'ilu shirk la maanaam bu nekkul bokkaale it mën na laa jëmee ca bokkaale maanaam nga xam ni lii moom du bokale way kuko kuko ku fam lay jowe ca bokale ngay téré ngok wax la lan moy wañi iman ci yenn jëf ak lan moy yokku sa iman wax la yenn moy barahinu tawhid manam wétal yalla dem na moom dong lañ wara jaam waruñu koo bokale kenn lan moy ay layam bu koy firndel ci kawnu bi yalla bint ci magay suñu borom subhanahu wa daanaka mën ngaa wax boo jàngee téere ba mu jeex tàkk ndax comprendre ko dégg ko mokkal dalil yi yow da ngay nekk nit koo xamante ne lu ci tawxidul uluhiya tawxidul ibada lu néew moo la ciy dese duñ ko mën a ci yeneen yeneen téere téere bi barkeel la li ko saraa ay borom xam-xam kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu fatxul majid yeneen boo xam ne mag a mag tam chara lañ téere la boo xam ne denc na ci xam-xam bu baree baree baree bari comme ni ma ko waxee sànq gisuma téere bi ñu taalif ci wàllu tawxidul uluhiya boo xam ne am nga dayo bi kee téere bi am nee naa la sànq ñenn ñi sax dañ naan benn dagit la ci saxiixul buxaari kon ci gàttal loolu mën nañ koo doyloo ci njëriñ bu nekk ci téere bi waaye buñ duggee ba ci biir di nga gën a gis njariñ loolu ñu la doon wax incha allahu ta'ala